asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum mbokk senegal waa cent 313 digital tey ñoo fi ñëwoon tey euh, fii ci koñu Waalo seet si bàjjenu Boy Dakar moom mi nga xam ne moo doon bëre démb daan am benn victoire ah léegi ma ñëw laaj euh, bàjjenam tey nan la nan la gisee doomam ak euh, jarbaatam bi nga xam ne mooy Boy Dakar salaamaaleykum bàjjen. asalaamaaleykum ma lay wax maaleykum salaam. wa rahmatullah wa taala ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu di sant samay waajur di kontaan ci sama doom muy booy Dakar réew mi yëpp kontaan ci moom koñ bi yëpp kontaan ci moom macha allah muy xale bu baax bu am yar bu am teggin nag ba tax buy bëre kenn du nalaw buy bëre kenn du lekk kenn du naan kenn du dal loolu victoire bi aksi ñi ngi sant yàlla nag bu baax ndaxte yaakaar dañu ñaan yàlla yàlla bu mu tas ndax yaakaar bi yaayam mag papaam am ci kër gi ba indi ko fii ah teg ko ci samay loxo macha allah mi ngi ci douzième combat waaw douzième combat moo doon combat démb bi mu am victoire macha allah benn defet la ci amagum muy bu ñuy wax naan. waa ji daanu ko sax ci suuf yëkkati ko dóor ci suuf mais par parce que génn na saako yi moo tax ñu jox kële victoire bi ñu ciy sant parce que loolu tamit du ñàkk ci làmb waaw kuy kuy bëree dañ lay daan maa nga daan dañ ciy sant di ko ñaanal nag booy dakaar yal am roi des arènes booy Dakar yal na dépassé roi des arènes ci barke Salatul Fatiha barke Serigne Babacar Sy ndaxte euh, mérito na ko et puis Boy Dakar il faut mu am lu baax ndax yaay ma papaam dañu sonn ci njaboot sonn ci moom yaayam faatu faatu la liggéey rek la xam papaam moom dama ko dama ko sax tegee ne ndax moom góor la mais ay rakam ñooy jaay seen ndékki ci buntu koñ bi ba ñu xàmmee ba léegi jàngatuñu école seen ndékki lañuy jaay ci buntu koñ bi donc ñii jom lañu am yar lañu am fulla la am fayda la ñu am ndaxte loolu ñoom dañu fekkee seen waajur liggéey rek loolu la xam si ñoom bi ñu juddoo ci koñ bi ba léegi kenn attewu leen ci dara seen yaay ak seen papa de masuma leen atte wax dëgg yàlla. yow selon yow tey jii nan nga gisee combat am ak euh, maanaam mbooloo bi ko topp tey nan nga gisee tey taxawaay boobu noonu xale yi taxawu ko tey. waaw taxawaay bi xale yi taxawu nañ ko. parce que suñu borom moo ko jëkk taxaw parce que man démb gis naa fi xale yoo xam ne mosuma leen gis ñoom caat mbër ak ñeneen ak ñeneen yëpp démb ñu ngi fi woon. koñ bi macha allah mobilisé wu ñaatali Grand Dakar ñëpp mobilisé wu du mag du ndaw kenn desu men lenn rek moom xaw a métti ci combat bi tuuti mooy Bécaye mbay waroon na ñëw couvrir ko wala doomam ñëw couvrir ko parce que mbëru ñaar tali la. mbëru Grand la doomu ñaari tali la doomu Grand la kon Bécaye bi bu mën a dem couvrir yeneen mbër kii mbërëm la waaye Bécaye couvriral sa mbër bi waaye Bécaye kaay couvrir sa doom man bàjjan maa ko wax. booy dakaar moom wax dëgg yàlla suñu rakk la sama yaay bàjjanam la ba mu talee ba mu dalee takk ngemb ba tey fii lay takkee ngemb ci kër gi sama yaay moo koy defal lépp. buy génn sama yaay moo koy ñaanal suy génn sama yaay moo koy génnee bu ñëwee itam sama yaay moo koy dugalaat xam nga ñi ngi sant bu baax ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax ba mu fi dalee ngem boo ba tey macha allah victoire rek te dañuy ñaan yàlla mu dem ba roi des arènes incha allah rabbi ndax mérité na ko xale bu yaru bu baax la papaam ak yaayam tamit ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom ñi nga xam dañu am confiance ah am yaakaar ba jël ko teg ko sama loxo yaay dugal ko suñu biir kër loolu dañ koy sante yàlla ba pare di leen remercier bu baax di leen sant di leen ñaan yàlla di yàlla yàlla bu yaakaar si moom yàlla na dem ba roi des arènes waa ñoo ngi ñaan nag Père Bécaye ñi ngi ñaan nag ngeen ñëw télé yi xam nga rajo yi ñëpp ngeen invité suñu mbër bi ngeen jàppale ko waaw ndax mbër bi ku jara jàppale la ndax booy Dakar dafa am jom am na jom te xale bu am jom nag moom la war a jàppale waaw ñu koy ñaanal ca kaw ca kanam rek. ndam li yàlla ko jik barki sëñ Fallou ko jik lool ay ndami ndami ndami ndaw tegu ci Dakar sunu doom la sunu rakk la sunu jarbaat la xarit la amuñu ñaanal ko ndam li jik ko barki sëñ Fallou mais lan nga koy wax euh, maanaam tey ndam bi ñëw na ci moom mais lan nga koy conseiller en retour. waaw gën yokk rek Dakar moom nag gën a yokk rek ndax li koy xaar bëri na li koy xaar bëri na lool lool lool lool moom xam na li ko war sax deful deful moom xam na li ko war bu baax. mais moom koy faral di wax. dama ko làmb ji ñëpp dañuy jàpp ne ñëpp ay ay nante lañ mais ñun dañuy demee ngaaka. ci biir géew ba ñooy doon nante yi te ñooy nante yi nante du xuloo du xeex du jaay përek du dof non moom xam na lu ko war muy fulla muy fayda muy jom ak gëm boppam ak ndongoo entraîné. douze combats doy na de barki maam Serafal dañoo bëgg combat bu am coow waaw ñu wanewaat sunu bopp mais booy yi nii jeex na te doy na loolu ci fi bëri benn booy. Assane déggal loolu man Baye Fall maa la wax loolu ak sëñ Fallou. ma ràq la si man ku baax la waaw moom nag moo liggéey ni ko bëggee quoi dañ koy ñaanal victoire bi jikko xam nga ñun ñu ngi si ginnaawam saa ne waaw parce que ñun saa su ne mun ne ay famille lañu ñoo dëkk xam nga dañ koy jàppale booy bu baax la dañu bëgg di ko dégg comme ni ñuy déggee ay Gris Bordeaux ay Balla Gaye ñoom ñëpp booy bu yaru la bu amee combat moom si boppam ñeneen ñi mënoon ñu dugg di ko waxal. mais moom mooy dugg kër par kër du ko wax nit ñi yaru tamit teg si am fula te buy bëree ñëpp lay bëreel ñaari tali bi yëpp lay bëreel du moom kese mooy bëree parce que saa su bu génnee day buy dugg si day bëgg indi waaw moo tax ñu ngi koy ñaanal nag yàlla na ko jik mu gën a yokk entraînement yi yokk courage ñun ñu ngi si ginnaawam. mbër la boo xam ne ku am avenir la parce que li mbër di dajale pour nekk mbër lépp mi ngi ci moom am na yar. am na sutura fonk na entraînement ba noppi wëlbatiku ah doo ko gis toujours bu amee combat pour nga gis ko problème la. il faut mu daan ba noppi komba bi jeex nga koy doo a gis te bu combat bi jeexee fi mu jaaroon doon sàkku ñaan ñoo ñëpp lay jaaraat dem dem féliciter leen. Yves lañ fi gis ah moom mi nga xam ne mooy xaritu Boy Dakar nekk léppam nekk ci nekk ci staff Boy Dakar yow dañ la doon laaj démb nan nga dundee victoire bi. xanaa kontaan rek kontaan rek encore une fois booy Dakar moom wax dëgg yàlla démb dañoo kontaan si moom la preuve ñaar tali bi boo xoolee démb ñëpp a génn xale góor jigéen mag ndaw ñëpp génn taxaw di ko xaar mu nekk nit ku baax koo xamante ne nii yàlla na ko yàlla jàppale moom ay ndami ndam ci kanam a kanam a kanam te incha allah liñ ko sas incha allah dinañu ko indil mooy ndam li nga xamante ne mooy roi des te yaa xamtewuñu ko. waa mais yéen roi des arènes est moom yéen yéen gëm ngeen ni mun day indi roi des arènes fii si ñaar tali. dafa leer parce que booy Dakar boo xoolee combat mi mujj yëpp ñi muy bëreel moom mooy jël initiative te koo xamante ne la du toog dakaar lu bëri day dem Mbapati su toogee bëriwul day dem ci région yi dem Mbapati yaramam dafa mën di bëre kooku noonu ñun ñëpp nangul nañ ko. la preuve dégg nga lu ma la démb ñaar dafa mel ni ñaar tali moo jël coupe ñëpp génn. dafa confirmer victoire démb bi dafa confirmer ne instant yi ñaar tali benn mbër la muy Boy Dakar. kontaan rek ak sant yàlla xam ni yàlla may nañu ndam bu sedd sedd suñu xol daal duñ def lu dul kontaan am ci mbégte te di ñaanalaat mbër bi jàmm ak salaam yàlla gën ko may ay combat yoo xamante ni dinañ ci am ndam bu soobee yàlla. combat bi nag waajal nañ ko bu baax préparé nañ ko bu baax mbër chaque minute chaque jour da daan entraîné matin soir matin soir da daan entraîné ci boppam ba dee ndax lan victoire gis ngeen démb public bi génn fii macha allah. kontaan nañ ci ñoom trop jàpp nañ ci combat bi surtout ko jàpp jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñun képp kuñ jàppale rek ñu lay ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal mbër bi tamit ah di defaruwaat rek ndax ñun dañuy doog a tàmbali pareeguñ sax dañuy doog tàmbali fi toll ni soldats yi dañuy xaaraat bërët ñu jugaat nekkaat sur le terrain bi booy dakaar am victoire seizième combat seizième victoire nekk xale bu ndaw waaw nekk nag préparé préparé combat am tey man laaj ko may ñëw di ko laaj tey nan la gisee combat am combat bi dal na ci am na ci victoire tey nan la ko gisee. waaw gannaaw bi ñu yàlla julli ci bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant staff bi yëpp waaw di sant tamit waa ñaar sali bu baax a baax a baax di jiitoon nuyoo bi ci Aydara Aydara Mbacke Niass Modou Sagna Modou juuf gars yi nag Modou Kopi lañ gën a xam man du ko bëggoon sax wooyee noonu mais Modou Kopi ah, sama ñum rakk ñum Vieux Diola sama Jimo Ndiaga ñum Aba ñum Lamine Naar Matar xam nga gaa yëpp daal bàyyiwuma kenn ku lim de juum ñoom badu badu déranger bàyyiwuma kenn waaw. waa démb yow gis nañ ni nga ñëwee maanaam danga nga ñëwee ak confiance confiance boobu lan moo la ko jox parce que di booy Dakar bu ñu daan gis ak booy Dakar bu démb non c'est différent quoi man daf ma jaaxal. <laughs> waa sant yàlla rek comme que nee nañ booy Dakar waa Dakar jóg rek. waaw soutenir ma moo tax ma am confiance. di sant yàlla nag lu ma amee victoire di ko sant di ko sant di ko sant di santaat sama ñaari waajur di sant samay staff waaw. waaw yow tey jii ma mën laa wax tey nan nga def ba daan waa ji parce que da nga ñëw rek dem jël waa ji si kawam songu ko jël tànk bi daan ko en ay seconde nga ko daanee. waaw loolu yëpp nag amaana suma coach su mbay fay ñu maa ngi koy sant bu baax ak sama coach su Pek ñoo ñu awma seen fay suma papa père Jaxate nga xam ne moo boppam. day feebar sax di ñëw samay mbir di si sonn di si def lépp ndax ma mun a am victoire ñoo ñëpp maa leen di sant coach yi daal ñoo ko liggéey ñoo ko travaillé moo tax affaire bi demee noonu. waaw yow léegi fan nga war a jëm fan mooy sa bët ak fan nga bëgg fan nga bëgg a dem. waaw fu ma bëgg a dem nag fenn la rek mooy si kaw du ma lim nag benn adversaire nekkul question ay maye buzz wala man maa nekk nit koo xam ne du ma nekk fi di lim. mais daal en tout cas daal maa ngi déglu sama staff ñu waxtaan ba jubóog promoteur bi adversaire bi su baaxee rek ñu jël ñu dem parce que amu parce que amuñu temps boo xam ne dañ koy perte quoi parce que làmb mooy suñu liggéey. mais lan wax supporters yi la daroon démb. parce que gis naa ni supporters yi bëri woon nañ fi trop. te démb dañoo dañ dañ laa dar xam na ni carrément yow tey victoire bi rek moo la ñor. Mhm. waaw dar nañ ma dañ ma sas te dama leen yore doon bor waaw amaana bor boobu noonu. dafa dama leen ko fay te sax fayuguma leen dama leen wis parce que lu ma leen war a fay dafa bëri waaw parce que am na ñoo xam ne compétir nañ fii nii ñàkk yooyu yëpp dama leen dama leen ko war a bégal kon nag maa leen sant di leen gërëm aw ma seen fay man sax affaire dafa ma étonné démb mais sant yàlla rek yàlla moom suy defar rek day mel lu yàq des fois nag mbër da nga dem danga nga am benn gàllankoor boo xamante ne dana dana mën a retracer sa sa sa carrière mhm. waaw mais dañuy sant yàlla rek. waaw ba yàlla dimbale na ma am nañ staff boo xamante ne ñoom mooy cadré ba du dootuma duggati ci pax yooyu noonu. Mhm. waaw tey ñan ngay gërëm ak ñan ngay sant. waaw maa ngi gërëm sama staff encore une fois waaw Aïdara Mbacké Niass Mourou Sagna Aba Mohamed Faye Alassane géey maa leen di sant bu baax a baax Modou Modou Kopp mi maa ngi koy sant bu baax di nuyu ñoom Maxo ñoom Abdou Xoussa gaa yëpp dañuy jàpp sama combat ñoom sama ñoom père. ñoom Ahmed bàyyiwuma kenn daal ñoom Lamine Naar gars yi dañuy sonn sama ñoom rakk Youssouf Bàcci ñoom aliw ñoom Maysa lamin waaw Maysa ak Lamine aw ma seen fay Lamine moom mu yóbbu estade démb Maysa tamit taal motom ñëw ak ñeneen ak ñeneen mafia bi yëpp ñoo xamante ne tamit taal nañ seen moto gunge ma ba estade aw ma seen fay ñoo xamante ne gaañu nañ ci ku si mel ni petit petit mu toogoon fii dafa daanu démb si moto bi ba am gaañu gaañu métti maa ngi koy maa ngi koy masawu moom tamit xam nga ñoo ngi koy masawu baax a baax a baax petit xam nga chaque combat dina am benn gàllankoor boo xam ne da siy def da siy dem ak doole ba am si blessure mais sant yàlla rek amaana loolu moo gën waaw mais ñu ngi koy sant yàlla di ko massa bu baax a baax am na sama yeneen copain yoo xamante ne ñu ngi dëkk Grand Dakar am na ñoo xam ne daan nañ ci moto ñun leen di masawu ñun ñëpp képp koo xam ne ñëw nañ ci convoi bi waa cak-cak bi yëpp waa benn tali Grand Dakar Biscuiterie HLM Grand Yoff Fallou HLM tamit maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax ak mafia bi yëpp waa HLM ñoom Nabou ñoom Fallou ñoom Abdou waaw ñaari Abdou yëpp waaw maa leen di bëggee Fallou sama doom day sama xarit waaw maa ngi koy remercier di remercier tamit sama yaay Ndeye Saly job Dieng ministre de la femme de la famille et du genre et protection des enfants maa ngi remercier tamit Ndiogu ambassade France aw ma fayam jàpp na si combat bi te dafa déplacé wu ñëw ba fii man maa waroon déplacé wu dem dem ba si moom mais moom moo déplacé wu ñëw ba fii génne xaalis bu bëri ne ma am préparé sa bi maa ngi koy remercier bu baax Ndiogu ambassade France sam papa Djibril Wade maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax waaw Jean Baptiste Diouf tamit maa ngi koy remercier jàpp na si combat bi sama papa docteur Sène jàpp na si combat bi maa ngi nuyu tamit waa Kaolack waa Kër ma Madiabel waa Pane Sader xam nga waa Jokkul Ganket bàyyiwuma leen waalo waalo waa Jàmminaar gaa yëpp maa leen di béggee waaw waa waalo bàyyiwuma kenn waa Kaolack ku mel ni Kawil sama papa Bouba waaw Koromar Pël Koromar Bambara ah dagga kumbal dëkk daal bëri na aaneen bàyyiwuma leen benn yoon waaw sëñcu Baaba Fay sëñcu euh, sëñcu sëñcu Baaba Fay sëñcu Amat Fall Panne Sader Njawara Alkaali xam nga bàyyiwuma leen benn yoon daal ku lim day jum dem ba Casamance di nuyu waa Tangori bu baax a baax a baax jàpp nañ ci combat bi waa Pakaaw maa leen di remercier tamit waaw di leen jaajëfal jàpp nañ ci combat ku lim day jum daal waaw ñëpp képp koo xam ne day tiitaroo booy Dakar koy big waaw kon tey nan nga gisee làmb ji bu baax a baax a baax. waaw làmb ji neex na. waaw man daal lenn rek laay jooy jeunes yi nañ delloo si seen xel ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay jeunes yi gën a góorgóorlu ñë képp koo xam ne mu ngi xëccoo maire yàlla su la falee nga mën a recadrer jeunes yi ñëw képp koo xamante ne day def la naka su dul noonu nga recadrer ko utal ko liggéey boo xamante ne si am lu mu si jàpp. ba tax na du dugg si yenn yi man soo gisee des fois may tàngal di wax booy nañ bàyyi lii wala nañ nañ bay lee dama bugg ñëpp jub parce que lu dul jàmm dara dàqu ko waaw jàmm moo dàq lépp xoolal suñu lii bi nii rek presque violence bëriwu fi amaana sax su amee ñun fekk nekkul suñu kanam waaw mais violence bi daal man dama xeex ba fu mu yem waaw loolu la rek ñëpp nañu woote jàmm waaw.